dama def benn affaire Mamour Diallo mom na tontu ci laaj ci makoy koy kan moo yoni aji sar wax ne Ousmane Sonko daf ma violé na si tontu moom xam na man xamna kan momo au 5 heures du matin le 5 février dama yakal deru Ousmane Sonko ndax dafa violé jigen man ma bagn appel bang fi message bang fi nama ma porte plainte ñu dem tribunal ma wan wa Sénégal que ne Mamour Diallo tekkiwul dara je le défie mom na wax Mamour Diallo est-ce que le ministère des Finances du Sénégal lui a délivré un agrément pour qu'il puisse mettre en place une mutuelle d'épargne et de crédit. Non, ce ne sont pas des opérations d'épargne et de crédit qui sont réalisées au sein de la structure. Parce que pour une mutuelle d'épargne et de crédit, il faut que l'Assemblée générale constructive, mettre en place les organes. Nous 17 euh, pièces différentes nga déposé ko au ministère des finances pour demander agrément mu accorder quelques mois plus tard avec ay favorable de la banque centrale Mamour Diallo amul loolu waxul dëgg li def la ne ngunu ginaar la

Sénégal ñepp tudd nañ ko na wax ba tey tontuwul na wax le 8 février le lundi 8 février kan mo taal kër param ay rakam taxaw masuñoo jakkalo caméra keroog ñu tit ndax xam nañ né sen wayjur bu jigen ak sen mam mu ci bir di sëqat te def nañ lo xamné dañ koy lajoo ak suñu borom keroog le 8 février kan mo taal kër yaayu Mamour Diallo ñu porter plainte contre X